xulil man duma dem dialogue ñay dem ca dialogue ba nañ dem ca dialogue ba bu ñu demee ca dialogue ba lu nu fa jëlee ñu indil ma man mi demul ci dialogue mm, la bonne stratégie de l'opposition la bonne stratégie pour ah, l'opposition ce n'est pas de dire mm-hmm. ñi dem di dialoguer ay traître lañu déedéet erreur bu mag la ah. la bonne stratégie c'est de dire ñi dem ca dialogue ba man man demuma dialogue mais ci suuf ñay dem ca dialogue ba booy daal bu ngeen demee gars yi l'essentiel bu ngeen demee lii ak lii ak lii man xam ngeen sama position si les préalables sont respectés amaana man dinaa ñëw ngeen déggoo entre opposants bañ xarabante parce que xarabante bi du suñu avantage nous le peuple si les gens maintenant parce que tey njort am na mën naa njort ne waa waa kii de dafa nar a wor njort ka baal nag bu mu wóor la mais munoo njort këpp ci kaani parce que boo ci këppee kaani ëllëg mën ngaa ruus comme mën nga am raison ña dem ca dialogue ba bu ñu fa demee nag jëlewuñu fa dara ñi demul ca dialogue ba ne leen yey nañu leen waxoon leen nag est-ce que yey est-ce que yey dafa tax du ma dund waaw ña dem ca dialogue ba bu ñu nee dem nañ ca dialogue ba ah wax nañu kat ba président Macky Sall ñi ñu téewoon libéré nañ leen. Ah. wax nañu kat ba président Macky Sall na ñu defaat révision constitutionnelle pour ubbi liste yi. Hmm. nit ñi inscrire waat. nangam nangam troisième candidature président nee nañ ko munoo bokk nee na mu ngi xalaat. ngeen rendre compte ñi demul woon. ñu ne un pas at été mis en place dañuy jàll sa ba sa des c'est comme ça la ma gëm la loolu laa jàpp ni moo gën amaana ma juum mais loolu la ma gëm la sa des nag ñëpp a ngi naan bu kenn dem dialogue maa ngi dégg l'affrontement est inévitable affrontement bu inévitable waa Ngor ñoom wane nañ luy affrontement man nag du ma toog sama kër gàdduma ma computer naan way il faut sortir. loolu du affrontement donc intelligence mooy doxal dëkk intelligence nag aujourd'hui mooy opposition bi doon benn nekk benn nekk kenn arrêter ces détails détails de yaa wax lii maa waxoon lii yéen ñaar Barthélemy ak Ousmane Sonko ils doivent se retrouver toog bàyyi seen yëfu xale yi ñu hmm. nekkee après quelqu'un me dira c'est Barthélemy moo tooñ man ma ne déedéet dafa am nu Ousmane ko waxee ci kàddu kee tontu ko tontante boobu nag ñoom ñaar moo warut a am. ñun régler ko en interne ñu jàll ca beneen pas ñu xam ne Sénégal moom tax a jóg benn adversaire la sénégalais yi am jamono bii sénégalais yi ëpp bokk ma bañ a wax ñëpp sénégalais yi ëpp jamono bi benn adversaire la ñu am ñu bokk kook opposition bi mu di président Macky Sall adversité politique bokkul ak haine donc les sénégalais n'ont aucun problème avec le président Macky danoo d'accordul ci politique am par conséquent dañu ko bëgg mu dem ci jàmm ak salaam ñu jàll si leneen. Hmm. bu nu mënee am loolu moo nu gënal nañu sa dem ba sës bu nu demee nag ba sës nag mënatul ñu jàll sa la sa des waaye bu dee affrontement ak la ca des ngor moom ils ont donné l'exemple que mën na def ni ñoom. Hmm. que ko mënul nag kon nañu dem si bii nga xam ne moo jëkk bu ñu paree jàll sa ba ca des. waa oustaz. waaw man euh, li may wax. li uh-huh. may xutba balaa waxee. Hmm. amuma lu ci tànn pour lu neex nit ak lu naqari alxaqu daal dëgg yu laa moo féete kaw wala yow na alayhi lenn féetekul kaw mooy vérité ñun man wala ñun wala ëpp ci ñun Seydina Muhammad mooy suñu royaay yent bi dañ ko exil mu dem mu jóge màkk dem Madina am fa quatre ans et mu war a ñëw Madina Màkkatal mu karam yónnee nit ñu may ko visa Màkka gouvernement la respecte ñu àq ak yàllaf mais dañu yàqelu waa Màkka ci yent bi muy ñëw ñu ne kon nag léegi da ngay vi da ngay signé. Mhm. déglu lu baax li ma wax de. Mhm. waa Màkka ne ko gouvernement yow rasulaay boo signé wut doo dugg Màkka ba yomal xiyam te effectivement yéen dafa signé. Mhm. non dafa négocié. dafa jël xaatimu najaat boobu dóor ko ci ci bataaxal mu mu marqué Muhammad. sallallahu alayhi wa waa Màkka jël copie mu jël copie. benn mais yàlla njëkk a dialogué Ibrahima dialogué na Ismaël dialogué na. Youssouf dialogue na yàlla ne Muhammad Rasulullahi wa yusaawiruhu bil amri mais loolu du dialogue li toll yàlla créé àdduna bi na Rasulullahi del waxtaan del diisoo mais diisoo lu mu la al xayawaan mooy dialogue dialogue dama koy faral wax fii ki mami gis nga doomu aadama kaso dafa metti kaso xool ñu fa dugg ñëpp ñi ëpp père de famille dañu ña fa dëkk ña fa dugg ñenn ñi ay politiciens lañu yoo xam ne bi dañ leen jàppe kidnappé yóbbu leen ndax lan ay détenus politique lañu mais ana kan boo xam ne tey moom nommé ministre la justice du Macky Sall moom du moom nit la comme ñëpp mais boo toogee wax moom ci islaax bay na sentimental da lay déglu ki mën a gracé sax tabaski korité mënut a baal ñi ñu jàpp mais dama ne kii gracé tabaski korité ak fête d'année mënut a bàyyi ñenn ñi jàpp mais waxtaan ko indi. après nag jiital sa xel moo gën gën jiital sa xol xol ku ko jiital da nga mës a rëccu dama ne yonent bi moo bind ca Madina sallallahu alayhi wa sallam makkatal mukarram ne al amiru min fitna fitna fitna wa kullu xayru fii wa fii sarr xayaara sallallahu alayhi mu ne buur bu juum moo gën réew mu juum xoolal ngor mu ne buur bu juum moo gën réew mu juum ñu ne waa nu ko ñu koy mën a rectifier mooy bi président woote wa magi ngor wala magi li bëgg ñëw leen toog nañu la ci xew xaw ma nag waaye nag dafa naa bu toog toog jiitu woon kon fitna du am xool Seydina Mohamed bu toog jiitu woon wallahi kon bal takk tàkk gendarme du doon et wax nga ko sànq ah, gendarme bi colonel général président mais ñun nous sommes ki sol tuni di sànni grenade ak di dóor mbokkam mbokkam di dóor mm-hmm. mais loi moo garaaw loi moo garaaw mu ne bu ngeen toog waxtaan mu ne jàmm am moo tax mu ne xam fu mu ko leeralee rasulullah mu ne fu fuy tàkk fépp fuy takk kenn mënu ko fay dégg de mun naa bëgg ñëpp xeex kenn mënu leen atte kon toog toogaana ko waxtaan ba juboo mooy li gën xam lu rasulullah waxaat beneen wax ci ñun surtout le politiciens kenn du kenn du Muhammad rasulullah man histoire lay jàngale c'est ma seet lu neex nit su ma sañ tey kenn du fanaan kaso waaye nag di la vérité ne na allah tatamannaw bu leen am intention ñu ne Rasulullah koy waxoon mun a alliqa dajeg koy dajal mun al aduwin mooy ki lépp doole mais aduwin fii sultaane mooy état bul am intention dal ci kaw buur <coughs> surtout buur boo xam ne bi bu lay dóor du la yërëm su la bàyyi rek nga làggi mu ne waaye nag fa isa laqitumuhu mun ne fa asbutu mais soo toogee buur ñëw riposte dal sa kaw comme waa ngoor mu ne risque riposte leen ndax lu ko ma ñu rey la. loolu mooy résistance. riposte voilà. waaw yan ti beex loolu. mais kon bi maanaa ay dama ne nit ki mënoo firi géwéntam. déglul ba pare. waaw mais Macky Sall dalawoo. mais mais euh, Sonko bu demul mais am na ay kàngam boo déggee fii laa ko waxee man sama wax du ko leeral loolu maanaam Sonko na lay ay mag di dar lay xam naa li may wax. yàgg naa ak buur de te yàgg naa toog te jàng naa boo dégg man Ousmane Sonko monsieur le président homme d'état nga. teg technocrate nga mais doo un grand politicien na la ay mag di dar waxin la boo demee bay communiqué ñi jàng juriste dañuy wax ci communication di jëm ci wàllu awoka ndax lu maîtriser nañ ko. ñaari baat laa la jox. bii des boo demul na am say ndaw dem toog digul la ci am solo mooy sunu mbokk yi ni ci kaso bi comme ni nga defee sunu sunu sunu rakk ju jigéen jii. Hmm. ah président kontaan nañ de boole ci ñëpp génne leen du la wàññi dara mais nag attention buur sees bi ko yàlla may moom la ko may la rasulaay waxoon su ma si woon ba yow ma xam du mu dugg màkk effectivement mais pourtant saaba yi dañ doon déconné pourquoi nga signé ndax ñi warkat lañu mu ne eh arrête yow Omar ibn Khattab yàlla bi mu indi aaya bi sa kaw la su ñun ñëpp la ko jaarale ndax ay complice lañu. yaa ayyuhal lazina amanu laa tarfa'u aswaatakum fawqa bi nabi wala taqaru lahu bi qawlin ka ja'rin ba'dikum li ba'din an tahbada a'maalukum wa antum laa tash'uruun nit xel mooy urus. te xol seetaan da ci dugg di la orienté wu bu ëllëgee da nga koy rëccu kon damay ñaan encore ma ñaanaat ku may kilifa woote président moo woote moom la yàlla tan na mu jiitu ñëpp soo leen woote toog mi nit la rek comme ñun te billahi gëm naa ne am na bu ñu toogee ñàkkoo ñu mu rus mu nangu leen na kon frère ñëpp nañ ànd dem sa diggante comme ni nga ko waxee léegi son Sonko ak kanate la Barthélemy Barthélemy Dias mais ay ndaw ay xale ngeen am loolu xam ma guddi gi télé man damaa rus waru si yéen ngeen sànni te mel ne ay xale sànni ay ay kopp bi maanaate moo tax moo tax mag ñi nañ jóg am na loo xam ne bi moo tax nit nit bala ngaa wax da ngay nat li nga wax lu mu doon bi ci des ma dugg ci côté économie mag ñi teewoon Sénégal mami gis nga tubaab dafa yàgg def lo dafa dafa yàgg xalaat noo waxuma yàgg tubaab def tubaab dafa yàgg xalaat mhm. seetaane boo ko boo ko bëkkee mhm. da nga koy yoon ba ca ñëpp na wëy daan na ko non daanu ko de dafa defaruwaat mm-hmm. mooy tubaab yi mag ñi fi nekkoon dañ daan bay ba pare jël mbay mi leen di ko ci sàq yi mm-hmm. sàq yi moo doon moo doon banque mm-hmm. sàq a asaka sàq moo taxoon ñu nekkoon gor du ñaan du ñu wayaani du ñu def ko def mais bi tubaab bi xamee ne nag mag ñii bëgg nañ fu ñu jaar ba ba am leen sàq yi mu sàq yi ñu yàq ñu yàq sàq yi voilà daana sàq yi par indi indi ay crédit mutuel la xam ñu doon voilà la problème salaamaaleykum. waaye eh, eh, eh, président Macky Sall voilà le problème waaw nga daaneel ñu dem ci deuxième point bi. waaw nga ne uh-huh. président Macky Sall la ingénieur. papa Assane wuyu waaw waaw président Macky lu mu doon ingénieur. Uh-huh. ak a mën a suude. ak a mën a. suude. suude soudure métallique. moom dafa mën a suude. ak gas ak gas ak gas su ak gas dafa mu dugal ay tuyaux. ah bon. xam nga usine bi usine si usine SIPS fi ma doon liggéey ah? waaw am na usine boo xam ne doon nañ gaañ gaañ ay teen ak yooyu. jaar na fa de. waaw ah, moo tax keroog bi euh, usine la de la la la guerre. ndox ma fa yàqoon. waaw waaw kii bi euh, nu mu tudd kër at Sarr bi wala du moom. mais tu sais que moom président Macky Sall ki am solo tenue militaire bi mais ñu bëri xamuñu tenue bi lan la ah. Hmm, hmm. parce que ingénieur la. ma xam naa bu ñu waxoon bu dugg ci kam suuf affaire bi léegi ndax ah non non la jàng. parce que nit ku ne fa ati xaw si bariha moo di ñaan rek ñun ñaan ni nga ko waxee rek ñun yëpp Sénégal ay mbokk lañu ah waxta ñun bu ñu saytaan dugg saytaan xaju si ñun. Uh-huh. kilifa woote na la nañ dem te. yow daal eh, yow daal tu es pour la. non non non xam nga man loolu leer na waaw comprendre nañ ko man damaa bëgg ñëpp texe àdduna ak alaxira. dëgg la yal na nu ko yàlla defal ñun ñëpp. te man man ku ma xam ne maa ngi moom politiquement ànduñu. et puis am na benn affaire am na benn affaire boo xam ne faw nu nu nu nu préciser ça xam nga lan moo la précision précision mooy lu lu ambigu lu leeru hmm. par rapport ak lu leeru ko loo xam ni dafa mel ni dafa ëlëb sunu bët et ça me concerne personnellement je le dis à tout le monde ma maa ngi tuub di jéggalu ci seen kanam man Baye Assane maa Sénégal dafa toll foo xam ni. xarañ ak muus moonu siy génne man dama xeex dama gëm ne nguur bi fi nekk baaxul si ñun dama gëm ne président Macky Sall hélas dafa échoué il a man loolu laa gëm nit mënul tax ba duma gëm loolu ba duma ko ñàkk gëm te defe naa ñi ëpp ci senegal loolu la gëm ndax loolu mooy constat bi moo la li fi ne lu nu gis jusqu'en deux mille vingt quatre hélas ci constitution ci texte président Macky moo fi nekk may tëjee fenn cette histoire de dialogue la il y en a eu près d'une vingtaine au temps de Wade et pourtant ba muy am jamono boobu ñu bëri bëggoon nañu Ablaye Wade jóge fii ci saa si mm-hmm. mais tant que ba jotul demul du dem waaw léegi tant que élection ba jotul du dem te mooy doxal ñu ngi ci oto bi duñu wax ak moom waxuma waxi xol hmm. ak passion ce qui est en train d'être fait à Ousmane Sonko est d'une saleté inimaginable c'est injuste waaye xel xalaat laa jëriñ mënuñu toog nit di def li moo def ñu ne duñu wax ak moom waa léegi dañuy toog ba 2024 ñu door a wax ak moom ci nan ci ay carte te mu yore carte yi te carte yi jaarul yoon bu nu waxut ak moom nag nan dem foqati carte yi kon waxtaan wax dëgg ca la fi ñuy toog di wax nii ñun ñëpp nañu génn dem foqati carte bi waaw ginnaaw ñu génn tout de suite dem foqati carte bi kon dañuy wax ak moom carte bi mu yore ne du ko joxe mu joxe ka bu nu demee nag ba xam ni sës nañu ñu nangu carte bi te nangu carte bi lan la mooy dem élection waaw élection yi moo kaa organisé du ñu wax ak moom pour élection yi jaar yoon lii rek la une opposition su amee une partie de l'opposition bu ne damay dem sa dialogue ba toog déglu ko man bu ma nekkee opposant su ma muusee laa wax vous pouvez dire tout ce que vous voulez contre mais man su ma muusee en tant qu'opposant stratégiquement du ma xuloog opposant kuy dem guerre ñu ne suba ngay guerre doo xuloog sa allié ma xel la nuy waxee xel mbir mi nag nit mën ngaa gëm passionné ba doo xalaat musiba dalaa dal dama ne man duma xuloog sama allier à la veille d'un combat loolu la ma wax man duma xuloog allier à la veille d'un combat du nangoo wéet à la veille d'un combat na ñëpp ànd ak man d'accord waaye les manettes qui ma permettent de me battre sama allié daf daf cee yor waxuma moo ko yor de daf cee amee du ma joteeg moom ki ma séqal muy sama adversaire di sama ennemi kooku laa amal affaire dinaa wax ak sama allié ci muus ba jot li ma soxla jàll ci leneen noonu la noo xeexee mais xabar xabar di dem toog nu la yuuxu sànni xeer ki toog ba pare li gën a metti ci làmmiñ bi ci làmmiñ bi la yem ñun ñëpp ñu ngay toog la yuuxu la saaga toog fi nu toog quand les gens fatiguent Ousmane Sonko j'ai mal pour lui j'ai mal pour sa famille j'ai mal pour ses enfants il est seul je dirais il est seul contre tous mais seul contre tous comment est-ce que du yoon ci wàllu conseil stratégique ne ko Ousmane léegi il va falloir demee sens bi ak bii ak bii pour l'objectif est à atteindre il est devant te li si des bareetul loolu moo la xeex ba ba ànd ak muus bu dee mu mënunoo xeexee noonu nanu dem hmm, na jërëjëf Papa Assane 9h16 minutes euh, ma fàttali ne yéen a ngi teewlu seen émission fajaru ci 2A euh, TV